ba pare ba pare riba ngay dunde xam nga dundee riba mooy nekk ci télévision dundee riba mooy nekk ci télévision nga ni buñ ma dàqee dañ may fay samay droit moo tax duma ma demander pour ñu dàq ma damay bàyyi toog rek noonu ñu may fay yow génnoo jëluñu la soxla wuñ la doo démissionner barke Seydil Hadji Malick man ku ma firigoo lundi mardi ma ma ma démissionné te am na ñoo xam ne abonné seeni compte day tëj sa wërsëg de billahi wal bi am na journaliste yu jigéen yoo xam ne ci senegal gii képp kuy abonné barki Seydil Hadji Malick waxuma pour sànni xeer waxuma pour sa saboter dafa am ñoo xam ne ni nu mel seen tabian boo ko xoolee jëlal seen tur nga yóbbu ko ci seetkat nga ne ko adadal ma tur bii nga xoolal ma ban biddiw la taxawee essayé leen ngeen dem dañ la naan kii bul jege bul abone bul déglu bul xool rombal jàll moom la italien di tuddee portasfiga koo xam ni boo koy jub si lépp di umu moo tax mu ni innama almuminuuna alladina ida zukira allahu wajilat xulubuhum wa ida tuliyat ayatuhu zaadathum imanan wa rabbihim yatawakkaluun nee boo bëggee xam màndargay jullit mooy ki nga xam ni bu ñu tuddee yàlla xol bi yëg ko te yépp ci yàlla la ko wéer ñu ne ah d'accord kon kii mooy jullit léegi kan mooy yéefiir ñu laaj alquran alquran ni yéeféer mooy ki nga xam ni inna alladina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun xatama allahu ala xuluubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa allahu akbar yàlla nee na yéeféer mooy ki nga xam ni dafa weddi yàlla ba fësal ko nga xam ni moom nga waar ko ak nga ñàkk koo waar fësal na ni moom gëmul yàlla gëmul yonent bi parce que li tax mu dëgër ci ñàkk gëm yàlla ak yonent bi mooy yàlla moo encastre xol bi xatamallahu ala qulubihim yàlla moo encastré xol bi wa ala sam'ihim yàlla moo encastré euh, euh, dégg gi du dégg lu baax wa ala absaarihim yàlla moo encastre gis bi du gis lu baax moo tax mënta gëm yàlla yàlla ni bu fekkee nag toog na ba faatu te tuubul wa lahum adabun azim ku dee ci yéeféer safara nga jëm